pool bi moom moom yomb na ci ñun kenn lañ ci xaw a kii muy Cameroun gi nga xam ne dañ koo am moom lañ naan moom lañuy diir mbagg ak waaye ñeenti des moom Sénégal fekkee Aliou Cissé def na la mu war a def woo ñi mu war a woo te boo bañ a xool kii sama compé la nangam naa xam nga équipe bi parfois looloo ko yàq mais bu wooyee ñi nga xam da leen war a woo moom pool mën naa nooy ci ñun waaye fii ak naan ay ki kii yàgg nañ wala nangam naa na xool boo yi nga xam ne dañoo tee dañ cee nekk boo xam ne nekk nañ ci pare am club yu baax na leen woo ñu ñëw football ñu ndax lii affaire Sénégal la quoi du affaire personnel nangam nangam nañ bàyyi yooyu waaw loolu daal laa leen. comme Guinée ak Gambie loolu moom du match. non ñooñu moom ay bonbon lañ quoi ñooñu moom ñu tiituñu ci daal daal dawul si yaram daal wax dëgg yàlla waaw ñooñu moom yaakaar naa muñ wax dëgg yàlla mën nañoo tëdd nelaw ah, am nañ fulla am nañ fulla seen bopp laa wax de bu classé wul lu baax sax ay Guinée ak Gambie yii moom wax dëgg yàlla dawul si yaram quoi. mais Gambie defaruwaat na de te moo ngi ci yoon. gambi lu mu defaru defaru defaru defaru bu defaron même ñun bu defaron ñun baxuñ sax gambi ñun ak mom du maxi quoi nooy bokkuñ ñun dañ ci yaga nek ta gambi day ñew defaru bu yaq waat dem waat bokkuñ dal waaw nañ leen xam ne ma gambi gambi mom dëgg yalla suñu mbokk lañ nak wax deug yalla waye ñoo leen man ci lepp demb seetaan nga tiral tiral bi seetaan na ko waaw euh, gis nga Sénégal pool bi mbokk gis na fu mbokk dekkandooy lol dafa saf de <laughs> dafa saf d'accord yow lan mo si sa xalaat ah man de su ma sañoon de man Sénégal dina jëlaat de waaye na yéen naa sama mbokk yi de. sama mbokk yan. sama mbokk ñoom Giraas yi les Guinéens je pas di Gisaaw Guinée les Conakry voilà ah, man boo amee double nationalité day jaaxal da lay jaaxal naa sama mbokk yi daal ñu dem fu sori waaye nag maa amul morom loolu mooy problème maane à vie moo dem fu mu dem mu bokk fa billaay wallaay dafa baax wër na Serigne Touba kooku amul. kon sa xel dal na ci équipe bi. mais bien sûr xalaat kuy toog kuy tegu ci Sénégal kay mais xam moom da ciy génn loolu amu amul nii sax parce que <clears throat> la. bon tirage bi aussi mën nañoo wax ni comme suñu biir la Afrique la mën nañoo wax ni match yi yomb na ci Sénégal mais jafe na tamit ci Sénégal parce que tey jii nii Gambie boo seetloo daanaka suñu dëkkandoor lañ ñu ngi suñu wet Guinée aussi ñu ngi suñu wet te tey boo seetloo ñoom ñëpp dëkk yi dañu demante di ñëw jege wante nañ kon tey jii nii dañuy dem ba match bi day nekk match bu nga xam ne nii day mel ne entre frères la te kon boobaa match yu derby lay nekk si ñun Cameroun aussi ñëpp xam nañ nu mel si ñun derbi la yàgg na sax nekk si ñun kon poule bi tey yomb na si ñun mais métti na si ñun tamit kon daal li ci war mooy fas jom bañ a xeeb benn équipe comme mi Gambie mi gine wala mi Cameroun nga xam ne moom suñ derbi suñ suñ derbi la mas a nekk entre ñun ak ñoom waaw kon tey match bi war nañoo gën a mën a fas jom en plus tamit comme Cameroun nu ñu amee match amical ak moom aussi bon daa confirmé na mais bu doon tey ji nii suñ sago tamit ah, fédération bi dafay annulé match bi munoo daje équipe bu nga xam ne nii yéen a ngi jëm benn compétition bu nga xam ne nii daanaka ñëpp moom la ñu xëccoo ji te compétition bi yaa ngi dem ci war fa daje ji ak moom tey ji bu ngeen ñëwee nga def amical kenn ku nekk fii lay commencé jàngat moroomam dëgg la amical nag pour loolu la jàngat mais ki nga war a dem taseel ji tey boo demee bañ def tirage te football goo match war nga ko mën a annulé nga xool beneen équipe bi ngay taseel tamit mu mel ne sénégalais instant bi ñoo ngi jubilé te dara xewagul parce que dañoo xeeb équipe yi nga xamante ne moom la ñuy taseel est que loolu tamit signe bu baax la pour ñoom waruñu tey. non loolu moom du signe bu baax moom wax dëgg fa yàlla waaw parce que mooy limay wax rek ki ngay taseel ñëpp ay frère lañ te daanaka dëkk yi benn lañ muy Guinée di Gambie jege nañ ñu te tey jii koo ci xeeb football dem na tey ji toll na ci niveau bu nga xam ne nii dépensé nañ dépassé nañ ay ah, yenn niveau yi nga xam ne dañ daan xeeb équipe parce que. danaan taxaw compétition yi mu daan def passé nañ niveau bopp ins bi football dafa développé te tey jii talent mooy football du question de turu turu dëkk wala turu équipe footballatul talent mooy football équipe boo fi xeeb jamono jii nii tey jii nii mën na laa toroxal ba ci Sénégal gii nii ñun suñu équipe boo seetloo suñu championnat Gambien yi ñoo ko gën a toj Gambien yi ñoo fi nekk di ko gën a toj kon tey équipe dañoo dem ba football tey dafa développé toll ci niveau bu nga xam ne amul benn équipe booy xeeb waaw ah, beneen bi aussi mi comme Cameroun ni ma ko waxee tamit Cameroun ñëpp yàgg nañ gis suñ match ñu nag ñoom ni mu demee kon Sénégal tey poule bii mu nekk poule bu tàng jër la poule bu nga xam ne dafa war a gën a mën a ñafe na. looy wax coach bi. bon Sénégal moom ah, Aliou Cissé ñu ngi koy remercier di ko jërë di ko naan jërëjëf jërëjëf jërëjëf indil nañu Coupe d'Afrique sant nañ ko gërëm nañ ko mais tey bu ma amoon lu nga xam ne ñun moom la ñuy ñaan tey fédération bu Sénégal mooy ñu wutal ñu beneen coach sant nañ Aliou Cissé gërëm nañ ko nag parce que boo seetloo tey ñun suñu équipe bi lim soxla moom la ñu defalut parce que équipe dañ koy togg defar ko te boo koy togg di ko defar dafay commencé ci jeune jeunes yooyu ñoom nga war a boole di leen boole ci équipe même bu fekkee ne doxul danga ko war a forcer te forcer mu ngi ko commencé ci amical yi ngay joué forcer leen ñu dem ba am benn entente bu nga xam ne ëllëg bu ñu taxawee dinañ mën a football lu nga xam ne ni tey da nga xam ne ñii nii équipe lañ mais comme boo seetloo match bi passé contre Algérie amical loon mais amical bi ñun ñu ngi ko doon football joueur yi di ko football mais Aliou Cissé moom football toon amical ba léegi mu ngi doon football final 2019 bi ba par ba tax na dafa jël ancien yi forcé ñu ko ba suñu équipe bi boo gisee defet bi loolu moo ko indi yaa ngi am ay jeunes Nicolas Jackson Iliman Ndiaye Lamine Camara ay xale la ñoo xam ne Pa Matar da leen di boole ci équipe fexe ñu am entente bu ñu amee entente tey jii ne bu ñu taxawee ci terrain dinañ mën a football Sadio Mané Gana Gueye dëgg la ay mag lañ indi nañu lépp mais ñooñ dafa nekk vétéran yi nga xam leen di bàyyi si banc bi ba bis boo jaaxlee nga doog leen mën a indi ñu mën a changer match bi wala tey jii nii boo boo bu fekkee ne ñoom ñëpp mënuñ football sax kuy aate genre ñoom ñëpp dangay xool ñi nga xam ne nii tey jii fin temps di nga leen mën a soxla nga dugal leen ñu changé la sa match mais jeunesse bi lañ gën a soxla tey talent bi parce que Sénégal am na ay jeunes joueurs yu mën a football yu fi nekk même ba ci championnat Sénégal bii am na ay jeunes joueurs yu fi nekk yoo xam ne soxla nañ leen mais Aliou Cissé moom bon na ma yàlla baal genre dafa mel ne comme si daal dafa am benn link bu mu am ak joueurs yi ba tax na ñooñ la ñuy forcer à tout moment kon Aliou tay ñu ngi lay ñaan ñun tamit nga dimbalé ñu tuuti suñu équipe bi nga renouveler ñu ko indil ñu jeunes bu baax ñoom ñom lañu gëna a soxla aussi. sétan na ko waaw. nan nga gisee euh, Sénégal poule bi nga xamante ni génn na ko. non poule bi méttiwul puisque Sénégal moy champion d'Afrique et poule bi jarno na xel puisque gaay yu bari dañoo dañuy sous négliger Gambie ak Guinée te ñooñu équipe yu baax lañ amna na chances pour génn mais tamit amna na chances pour des si poule bi. parce que football moom ñëpp a ko mën fu mu toll nii amul faveur mais am nañ ci yaakaar daal que ni mën na génn. yaakaaroon ni euh, ren dina am surprise. non dina am surprise parce que équipe africain yëpp dañoo yeewu te football tamit dafa yeewu Afrique. Mhm. mu mel ni suñu équipe bi aussi am na ñoo xamante ne ay joueurs la ñoo ngi nekk ci biir te dafa mel ni ren du ñu dem li nga xamante ne moo di Coupe d'Afrique bi est-ce que loolu tamit du ci xaw a sooxe. Mm-hmm, dana si sooxe puisque booy yi ñu war a andi mën nañ ñàkk a compétition bi te grand yi xam ne ñoom ñoom ñoo war a cédé place bi ñoom tamit ay leader lañu woon si équipe bi miin nañ kaan bi dem nañ ay kaan yu bëri loolu dafa baaxoon ci équipe bi. mais la plupart boy wara a tamit duñ muy na comme turbine bi staff bi ak euh, température africain loolu tamit mëna jouer suñu équipe bi bu baax. bo amone conseil bo leen di jox lan lay do non conseil bi ma lay jox surtout moom moom euh, mooy coach bi mu veillé ci xalé bu baax may leen seen chance et que grand yi tamit même la plupart bu leen convoqué wul tamit mu am certaines yoo xam ne dina leen andi ñi nga xamne min nañ kan bi loolu nonu conseil la pour coach bi. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. tur bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet leader 221. Mourou Diagne maa ngi nuyu waa Sénégal. démb seetaan nga tirage bi. non non seetaanu ma ko ndax dama guddee wàcc ko euh, d' accord mu mel ni Sénégal nag moom moo génn euh, groupe C muy dajeel euh, ñi nga xamante ni moo di Gambie ak Guinée ak aussi ki nga xamante ni moo di Cameroun yow loolu ban jàngat nga ci am. non loolu Sénégal moo koy jël bu soobee yàlla Sénégal ñun mooy suñu équipe mooy suñu réew. ñun man bi senegal la bu mitay senegal bu neexee senegal ñu suñu lépp Sénégal la ñaan yalla senegal jël ko ci jamm ak salam rek tam jigleen lool nag la am luma ci wax. mu melni euh, sénégalais yeb dañoo japp euh, confiance parce que bo xolé équipe bi nga xamante moy gambi dañoo takku waat ba deuguer non ñun ñom chaque jour confiance nak leen yor dañ ko gëm quoi équipe bi ñu yor dañ ko gëm moo tax chaque jour confiance dañ leen ko jëleen daw ci carte yàlla dañ ko jël waat ren bu soowé yalla bo amoon loy denk équipe bi lan nga leen di wax. non ñu gën a góorgóorlu rek gën a yokk entraînement yi loolu rek